أني أني إبراهيم abi lawi di muqaddam Cheikh Ibrahim ak fu mën a nekk si diaspora bi di nuyu taalib Cheikh Ibrahim yëpp ndokkeel ci bés bii xam ne bés boo xam ne Cheikhul Islam al Ibrahim wax na ci ay wax yoo xam ne jéggi na dayoo yéen teeru ak ñi juddoo yàlla daf ko teral teral weer teral bés teral wàccuwaayam sànni bi nee na loolu de jàng bu rafet akramallaahu aama wa shahra wal yawma wa maxran milaadi ak bisaras kon nañ teral bii imaamu booleem at أدنى بأدنى جهيد أدعاقيد إمام مهيل التلمام نحمون موي إمام البرايا تبرايا جملة الأرواح والأشفاء والآخرة إمام نيلة موي رسول الله صلى الله عليه وسلم تموي بروم بسي نمبر القابلين يونا الجمهور fekk nañu ci jàmm booloo ñii xam ngeen kenn ku nekk dafa jógee ci gox yi fakkati ko lool ñoom ñëpp seen xit la mooy ñëw mbir na shabaraa yi célébré bés bi guddi gi nag wax dëgg ñun jox nañ ko àqam ndem man nañ ko jox kay jox nañ ndax nag coor yi bëri ci lool am na taxaw nag tembe ne di gàllankoor ne bés bi dox ne naa bés bi daal sànni nee na mu ngi léegi léegi benn wax mu ne def gàmmu roy maqaama yéeféer yi nee na gis na léegi benn waay bu ko wax moo lay xamal ne kii xamul yonent wala xamul ku yonent wala xamul lan mooy cosaan yonent ñun bu ne gàmmu lii moo koy jëmmal ñun juddu yonent bi loolu dañuy wax ne mooy gàmm loolu la ñuy te it nag Cheikh Ibrahima nee képp ku ko màggalu béy ci ngàll nga yonent yaa moom yonent bi ku ko béy ci la ku ne prépareel sa sëy sa sabar yonent bi waxoon na wa taala day wàccee si yéen xéwal na ngeen ko sant bu baax alquran nee na fa amma bi ni'mat rabbil fadis yàlla bu wàccee si yow xéwal na nga ko sant yonent wax si benn hadis ataxaddu bi ni'matillahi shukru wa tarku kufr nettali xéwal yàlla yi mooy sant yàlla ñàkk ko nettali mu ne kéeféer alquran nee na julli yi dañoo yàlla wàcce na ñoom xéwal di wàcce yonent yàlla seen biir wàcce yonent bi kon mooy xéwal kon nettali xéwal mooy yërmaan yàlla ñàkk ko nettali mooy sànjal yàlla kon sànj bi ñu ngi sant yàlla bu baax bu gërëm yàlla di wax na seen islam nii ñun ñëpp day jàpp ci buum ndax nag bàyyi ñes alal bii wax dëgg yàlla moo fi ma alal ren mii wax dëgg yàlla bàyyi ma te loolu wax nañ ko bi annil maala rahma kulli hulil daane man Cheikh Ibrahim di bu gande bu kayno daw na bind na ci atteem ay atte ne man Cheikh maa gën a kawe ñëpp ku neex ku naqar ku bëgg ak ku bañ loolu bàyyi ko bindal boppam di ko bàyyi bindee dañ ko vérifié gis nañ ne dëgg ne ki wax ne bëgg yéen maqaam yonent bi ku koy xëccoog man yaa ngi def lu xaraam faman raama tarkii fi siyaaqi danina faqad raama amran mustaxiilan muharrama dëgg-dëgg xam nga ne kii waxam ji rey na li tax bàyyi wax ne sàkk ko xaram pour saamta lu tax xaram ndax bàyyi nekk ak yonent booba ak jamono amul ak barab amagul te bu ne jamono mooy fi mu toog nii jamono guddi gii mu ngi fàttali jamono toogaay bii mu ngi fàttali jamono kon guddi gi jamono mooy aarum arwax barab mooy aarum asma yéen jàll moom rek moo mu ne xaqiqatul kenn du ko wax aarum lu bëgg day dugg sàkkat ma wane al arwaax àqal rek ma wane yow tu bëgg nag nee na man wéet naa sama bopp wéet boo xam ne man yàlla kott kott ñoo fa nekkoon yonente yàlla nabi Muusa nekku fi malaka mu xarami nekku fi maanaam yàlla kon loolu li muy fii di yàlla ne kuntu kanta la ma warof xam nga yàlla ko woon waaye ma dafa ahbab mbëggeel ko foofu bi xam xasul maam Malick kon nag màggal mbëggeel bu dafa doy sëkk ak bàq bés la boo xam ne képp ku ko fekkee te dégg wallaahi ladi laa ilaaha illaa yàlla la dugal bi xëy xisaab wala iqaab sàng bi nee na mu ngi ndokkee mbooleem mbooloo mu toog si mbooleem ku fi toog yaa xam ngay góor yaa xam ngay jigéen mbaa ngay mag mbaa ngay ndaw mbaa ngay ku ñu xam wala ku ñu xaw sànq bi nee na mu ngi lay dokkeel ci bés bii toogaay bii ñu toog muy fàttali jamono bi bàyyi doon toog ak saaba yi mu koy fàttali jamonoy Satijaan yi asaaba mu koy fàttali jamonoy Muhammad asaaba mu ngi koy fàttali yàlla subhaanahu wa taala ak malaaka te jamono yooyu yëpp mu ngi man si jamono bii ndax daayira yooyu si ñi man suux mooy daayira bii nga xam ne mooy adratul baqaa yi wala alquran jàngale benn saar bu gàtt ne wala envri ñii de gën si jamono mbaa dégg naa ko si sax sax wala jamono bi yéen a tudd ma ne loolu yëpp ay gëj la ci. sang a war a ansari gëj naa ko ci kaamil ansari bu yàlla bu mu nekk ku wiit ci alam te moom rek moo xam ne moom la. inna al insaana nag doomu aadama yi إلى يلعن وعن سايات وطال الحق وطال الصبر يلعن مجيد ويسال من عن سايات نيدف دور النبوة آمنوا دور الإسلام تواصل الحق دور الكرامة تواصل الزبر موي عبد البقر موي سانغو مولم دايري du tax loolu nag sangam bi laa foni xadra boobu sang bi nee na mooy xadra moo tax bàyyi na bind ne doomu aadama yi sëriñ si yéen borom xam-xam yi yeneen tiri bu leen réeree man bàyyi maa ngi leen sa xol te xolu bàyyi sang bi ne macha fa nga bàyyi la soxla soxla kooku ma la du engrais bi sànni ne ku fa dugg de mais bu bëggee ñu fa ne dangay texe mais boo xamul dara dara dara xamul ci nit dara déglu waa engrais bi dangay texe ndax yéen su daan ci moom nga di ko dëgg dëgg naa sare wax leen alhamdulilah dafa jot ci dafa jot ci nit yi moom léppam yéen maa yàlla mu ne yonent bi ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas léegi nag loolu wax la boo xam ne arab bii mu ngi si waaye xam-xam bi tuuraankat lan mooy kaafatan te yonent bi biñ xamul ne benn mëneel la bu nekkoon mag te kooku faam na bay kan lan mooy xikma kaafatan linaas mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay élément te élément bu nekk maqaama am na fuñ ko yóbbu am na benn élément boo moo dem ca malaaka yi bàyyi ne malaaka yi a si salli ala man sajada li nuuri il amda am laaku rabbi uhkimat aayatu si ëllëg yi yonent boobu nag boo élément bi nekk ci moom moom lañ yebal si aarif billaay yi xam nga di dafa am beneen élément boo xam ne ruux du ruux ëpp ruux waa élément mooy nàmpal ruux yëpp loolu sang bi ne mooy xaqiqatul muhammad mooy ruul akbar bi ruuy des yëpp ay asxar lañ mu jigéen foofu am beneen élément caaxaan ba amal ya mu ñëw nàmpal boole yaram yëpp kay nàmpal mooy rasulullah sallam ci aaram boobu mu ñëw ba dana aaram aaram aakara wala jëm rek élément nàmpal mboolem boo xam ne bëgg nga xam si moom benn ci moom xurufaa yàlla yi mu nàmpal la caaxaan boobu mu nekk mu nekk benn élément boo xam mooy sànq élément yëpp te lu nekk du dox mooy nation foofu nag. maanaam du masaay sooyee na ku fa laa budda la kamaala aarif bi la aarif bi la mën naa passé xam xaqaat xam nisb asma tamis awalim asra abadat daru sir daru ismi daru sat maqamat maratib salawat xam ko di ko xam di ko xam di ko xam di ko xam ba lépp nga roofal suñu déglu suñu roofal sa bopp ndax lii ku xam ni ndax aaris bi daal mën naa amul yow rek déedéet kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel gaa yëpp saa yu ne muy ndokkeel si gerkat yi ndax nag la ñoo dëgg ñun ñi waxtaan gën mën a xam bu ñu si ñuy mu leen di ndokkeel baax ñëpp bàyyil kenn waaye mu ndokkeel waxtaankat yi kenn ku bi nga ñëwee taxaw fii mbooloo bi yëpp si giriñ seen ci nga taxaw fii kon nag kan bet mboolee ku sa xol set na gàmmu bi ku dana gis yàlla gis yéen gis seet yaan gis sibaay gis seen waa cuwaar yi moo la sant ci yow soo jur ci yow bàyyi waxoon na ne a ngi gam waaye ñun waa Medina ñoo faral ak yonent bi ku ko gis gisoo ko ku wallaahi rabbul samaan bii ñun ñoo faral rasulullah taala ku ko gis gisoo ko ku ko gisul mu fawqa sama wa innahu dana فندلع ووفي على الفرس دنا فندلع دون كيف فإنه لغار أنا هذه الجبل نيلن بكي بخ دقرم شكراي يا سبحانه وتعالى nekkul ba walis ba ñi nga xam ne ñooy wax yàlla mu ci asmaan dañoo juum bu xamul li asmaan wala kuy asmaan duñ juum asmaan moo leen taal ma asmaan dëkk moo leen taal ma asmaan dëkk bu yàlla moo leen taal ma ku xam lii wax nga الله ورسوله أحق أن يا إلهام استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يريدكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه من سانتياغو مارتيريش نيب غور سانيا دينيا مبولو دي nee tabiya mazhar am na fii jigéen am na itam tabiya boo xam ne góor waaye Satiyaani dafa wax ne wa inna min nisaa'i rijaal wa inna min rijaali nisaaw wa inna min nisaa'i rijaal nee na bëri na ay góor yoo xam ne fekk ay jigéen lañ bëri na ku nekk jigéen fekk góor kon jigéen ñi nekk fii jigéen lañ waa ay góor la Mawla Baye Niass moo ko bind tàmp na ko ne man Baye Niass sama taalibe asawu rajo unzan aw sagar wa siru li xëy wa baaw wa xatar bàyyi mu ne sama góor góor sama jigéen góor wallahi ladi laa ilaaha illa bàyyi ñu waxee lii siif waxee lii du aw du laaw du jabru du malaku naa suut na ko waxee ndax li commencé aw ba malaku lépp ay fanaat fanaat benn tànk nga taxawee jigéen nga doon soo jugee foofu dugg àll ba bàyyi la nga fanaa yëpp nga fekk foofu lii mooy góor ku jeex fii. bàyyi mu ne bu jeex si mooy góor fanaawa baqaan bi nabi muhammad wa najiri simar ismi fil jaame wal faw sang bi nee nañu sant yàlla baax na ñun daal moom rek moo fi te ñun ñëpp a ngi fi bàyyi la wax ne kenn ki mooy ñëpp ñëpp ñëpp mooy kenn loolu neex naa gis nee na wax na ba tàyyi ne benn kooku maa ngi nga ji ko mu gena génne ay tronc yu bëri génne ay feuilles meññ meññ meññ maa ngi bëri te maa nga boo lekk boo ko xaree ba ci biir nee na mën nga jiwoon te pourtant la nga jiwoon benn rek la te maa nga mu ne nga kon bu ñu waxee maa bu tee yàlla rek moo fi ñu sant bi na wala ba ne at ku nekk taxaw ne ma yàlla du tee benn yàlla moo fi nekk parce que lu tax benn yàlla mooy asur moom rek la pour yàlla moo nekk fu nekk ba wàccee càq ak moom de la ci pare lépp luy défulé di wër caalam di am amam yeneen tiwi sallallahu alayhi wa sallam xam nga jamaa daa dooleel këw Muhammad ñu ne jamaadaar yi xam nañu jamaadaar yi sànq bi mu yéloon du ma fa nekk bàyyi na ba bëgg a tëggee boo leen cas di ko tëggee fekki lu effacé na loolu kon o koy ku fi ne ñu ne wuwul kul lilul kul bàttalan wala yéen fa baarul si waaw maa naa fii masa kon sànq bi ngay naan ñu dëgg ñëpp laa ji daaw wax dëgg yàlla bal jël nañ ko coupe bi jël coupe bi jël ndax boo demee ci muut boo demee ci nuux day daw ka ko téye mooy kan xam ngeen boo demee ci instant kay daw day daw fa même xam ngeen ba demee ci Ibrahima day daw di daw di daw fa kii mu jël ko wala nasal la daa xëy war man bàyyi waaj waaj ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi yonent bi waaj bàyyi waaj ñu ne ko kan la mu mu ne ma Amadou Amdati Mouhamadou Wasali ana tuba iliyu doom mooy yonent bi yonent bi bàyyi ko léegi nag loolu du saay bu la neexee sax jël asman mooy bàyyam suuf mooy yaayam am bu nekk ci trois mois ci kaw trois ndox muy jëm sa doom mooy kanaan sonal naay moo tax bu ne ndox mooy nit du ndox mooy ndox yàlla bu ne ba kanaan sonal maa sàng bi nee jàppal ne mooy nit nit kooku rek mooy tënkaat kooku rek mooy nit kuut moom duugu nit yàlla ko ina aran amaat ama samawaat kon amaana bi musal asamaan yi bëri nañ suuf yi bëri nañ doj yi bëri nañ wa amala al insaan musal kon kee joxe amaana kenn ñam koy jox ñu bañ mbooloo la ki ngay yeew kenn wa alal insan kooku mooy insaanul kaamil kooku nag ñu ngi ñëw ci Yàlla subhaanahu wa taala doole ci iman ci xam-xam bu wér bu leer bu sëbet kooku moo toog sii di waxtaanee rek mooy Mawlana Sall ma xam ngaay leer na nañ ku bëgg lu leer leer na ku bëgg lu lëtt di bëgg lëtt sa demee ñu dëkk ànd bi ñu koy wax ñu sant yàlla ak leer ndax sebaan jamono bu ne ko ndax waliyu ba mu ne ko manqué njot si yàlla bu ne ko a xutbu ba mu ne manqué njot si a bu ne ndax aarif bi laa mu ne manqué njot si moom moom moom kon sànni bi nee na ñu ngi sant yàlla tamit ñu ngi wax ne silaam yi Cheikh Ibrahim bu di wax ne Cheikh mooy borom fëy dawal na ko dawal na mu teg mu laaj nag mu ne léegi nag ana kenn si yéen benn ana ay na ramada man bàyyi ma wanen taman sa warante bi li ngay faj mooy jokko ngeen di ay na nii minku biasal kia ana kenn si yéen mooy tufaay kon tufaay kenn ci daal bay na ko yor inna ibrahima ibna abdulilahi taalibu malika fawzu bi ñu ngi sant yàlla baax bàyyi sa laal waxal yépp a leer waaye lëndëm mu ne saabe am a xëy mu saabe yépp am na lëndëm am na leer am na leer am na lëndëm waaye dane sàng bi nee na yépp lëndëm waaye dane yépp a leer ci kaw bu buggee mu leer boo demee ci ku leer lépp leer boo demee ci lëndëm lépp lëndëm boo demee ko am lëndëm ku boole leer lëndëm muy leer ba bàyyi wax ne gis yi ñetti gis amal basira daisul basira ak xawil basira amal basira mooy gumba daif basira mooy bëndil xawil basira mooy ku mën a gis bu ngay bés feel amal basira mooy am daif bari daif mooy majzub xawil mooy aarif billah aarif moo xam lu mu xool gis yàlla yërëm Cheikh Tidiane Cheikh Ibrahim gis sa te benn cëmm la parfois ba par daw baa ngi danga ko raw siru bi galma meew bi tur bi jëmm yi njëriñ jiw ma xam benn plan benn programme ñu ngi sant yàlla baax ci ko di gërëm yàlla lii sang bi ne mooy taw moo tax bàyyi ne tey si yonent la gën a lu tax fa la ko bàyyi wax bàyyi mu ne yéen tamit nu wax yi mawlaana bi ahmad wa bi lutfi wala am naaj wa kii al muhaymin sang leen ñu sang ñu ngi siyaare ñëpp di ndokkee taal bi fu waay mën a jógee yàlla nga dellu jàmm mbooloo mi yàlla bu sabab am cër teg àdduna teg àdduna ko bëri alal ju bari lool alal ju bari lool yàlla nañ te bu kenn beew jigéen ñi ñi amul borom kër yàlla nañ ko am te am ñu baax lool te taalib Cheikh Ibrahim góor ñi ñi amagul soxna nañu am kër Cheikh Ibrahim ñi am soxna njaboot gu barke lool alal ju bari fan wu gudd wér gu yaram jot faqam ijaaba martaba yi yàlla yëkkati ñu aaj saara baax ñu ngi gërëm di sant ñëpp di nëkk ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah sànq yàlla na fekk Alhamdulillah, mbokk yi gis ngeen ko 2023 daanaka waxtaan bi Maulana Sang Barham Ndiaye Eh, adduna bi yëpp ñu ngay gàmmu waa ñun ñi waa Sénégal rawatina waa Medina Ba ñun ñoo fanaan ak yeneen ba bësëk kon itam loolu fàttaliwaat ba léegi nag di mu yàgg fi loolu ànd ak wër moom Maulana Sanga Boubacar Bakhamu Ndiaye mbokk yi di leen joxe rendez-vous ci yeneen direct incha allah abi eh, ci yeneen شاء الله دو ياغ دارا دي نان نيوات دي واجال لي خامتا موم موي زياره دي فالا ني سي داكار ان شاء الله سيدي بال بو مبليك ني نجي لاي زيار بو باخا باخا باخا الى من بدال الناظرين جماله كلا